yéen a ñu voté kenn xeebu ko wax ak mbokk yi ngir ñu voté na ngeen ñu dimbali parce que dans la région nord ak dans la région est amaguñu suffisamment de personnel politique pour surveiller la vote parce que élection bi leer na ba noppi bu ñu doon xool ndax sénégalais wane nañ seen bëgg-bëgg mais nit koo xam ne kii dafa am état am pouvoir am sénat am daaf am police am. autorité ëllëg euh, autorité décentralisée mën na sàcc élection parce que mës na am buñ ñu gëm la ni sàcc mënut am ndax ñi am ñi jox carte ñuy voté deux fois trois fois quatre fois am na kenn mënu ko wedd mais bu ñu amee ku toog di xool ku kenn dul napp ku kenn dul xuuxal muy ragal kenn du sàcc ci nord bi kenn du sàcc est bi Dakar dina ko res Thiès dina ko res Touba dina ko res Mbacké dina ko res Louga dina ko res Kaolack dina ko res Saint-Louis dina ko res Ziguinchor dina ko res mu des mu des fi nga xam ne bii amuñu fa ay bët fi ñu amul ay bët dimbali leen ñu fa ay bët la région nord et dans la région est ñu mën a surveiller la code dóor gaa yi mu jeex leneen li ma bëgg wax mooy di ko jeexale Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi ci kaso bi borom fiche de parrainage 111 dafa am liggéey bu am solo bu mu def ba Pastef diaspora taxaw na ngeen seede ni par la voix du président Ousmane Sonko ñu ngi koy remercier pour toute la qualité du travail qu'il a fait et qu'il continue de faire en prison. et li nekk ci moom moo nekk sur nos 1500 détenus déterminé mais Macky jàppul détenu kese jàpp na famille yëpp ndax kuñ jàpp sa doom jàpp la kuñ jàpp sa jëkkër jàpp la. kuñ jàpp sa jabar jàpp la kuñ jàpp sa bàjjen jàpp la kuñ jàpp sa njaay jàpp la donc jàpp na plus de 1800 familles tëj ci kaso bi mais du doon jàmm ci moom la victoire est proche 75 jours moo des mais 75 jours 75 jours on a subi 12 ans de primates d'assassinat d'emprisonnement dàq nit ci liggéeyam 10 ans il reste 75 jours mais 75 jours bu ñu naagoo yàqu bu ñu yàkkamtee yàqu ko bu ñu xuloo yàqu bu ñu teeyul yàqu ko 75 jours de la victoire 75 jours pour que Ousmane Sonko dox ak ay tànkam dem fóon drapeau Sénégal ne moom mooy président de la République 75 jours pour que Sadiq Top ñibbi Dakar. année bu ma jeexal soixante quinze incha allah mais suma gars yi yéen jigéen ñu baax ñi yéen góor yu takku yi bu ñu naagu nañ ko defar ba mu nekk victoire bu kenn dul werante nañ ko defar ba mu jekk bu ñu naagu bu ñu naagu nañu programme.